civil bi Ousmane Sonko wax noo ko noo ko noo ko gisee. ni ma ko jàngatee du mu njëkk a woote mag ñi fi baax ñi fi jaar yëpp la ñu am réew bu demee ba yoon jeng am nga droit na respecté du ma yoon ndax keroog Ousmane Sonko ñi ko ñëpp bokk ci ay kilifa diine ñoo xam ne xam naa leen dañoo tuur ay xéewal fi ñu toog ndax mag mu toog ne la dund naa ba am nangami at 2016 lay njëkk a door am assusis problème dinaa li ma dund lépp li ma xam mooy ne ci sama liggéey jaamu yàlla toog seere sama njaboot 2016 boobu mu am ci amoo yoon amoo yoon jafe-jafe mooy bi ma commencé dugg ci politique. wax li ko yoon teg rappelé ko fàttali ko. ba pare wax moom li nga xamante am na ko ay jafe-jafe ay nit bu ko yóbboo ci yoon yoon ni mu ci doxalee. kon tëbut tëb wax ne man dootuma wuy jee ci yoon dafa fàttali nit ñi dafa fàttali lu am solo la. mais est-ce qu'il a rek moo daa wax loolu lu am solo la wax li ko yoon teg moom. depuis mu duggee ci politique. bu doon koo xam ne avant muy dugg ci politique dana am jafe-jafe leen dana am dana am jafe dana am jafe-jafe ak yoon nga mën a wax. dana xam ne du politique. dana xam du politique. Mhm. mais dana 2016 laa njëkk am jafe-jafe yoon. te loolu dafa dëppoog ba ma duggee ci politique. Ousmane Sonko aussi laa mi ñam newul ci poosam ah. non xaaral tuuti boo a des ak ñu bëree bëri. non moo daa moo daa wax Sonko xel mënut a nangu mu nekk seul sénégalais boo xamante ni moom rek la ñu yóbbu ci yoon bu yóbboo kenn ci yoon yoon def liggéeyam loolu xel mënu ko nangu. est-ce ah, nga wax nii bu buñ ko yóbboo ci yoon mu wuy ji. te bu yóbboo du dem xoolaat boppam maanaam est du problème bi c'est pas lui. xoolaat boppam kay mooy li mu def nii. wane ginnaaw yoonu Sénégal moom dafa man ma ko respecté loolu mooy euh, fi ngeen bëgg a dugg fu baax la ci yéen parce que mois bi ñu nekk mois la boo xam ne ñaari yëf ñu ngi leen ciy xaar muy Mame Mbaye yàggatul après procès Adji Sarr bu war a ñëw yéegi ngeen bëgg désobéir loolu dina xaw a doy waar ñaari procès yëngatu yëpp bu na def lu mu ci wartoon a def. mooy mooy heure bu ko yoon wooyee ci procès bi wuyu ji na jël ay preuves yëpp teg ci ay awakaam sàkku ci ay nit ñu seen loxo dugg ci complot bi nañ ñëw témoin siis bi bañ ko. mais dégg nga yi wax ci affaire Adji Sarr bi jour bi ñu koy woo la bu demul lañ koy jël si. loolu dina différent ak Mambay bi Mambay moo na bañ a dem. mais bi mais bi foog mu dem. la sees bi kanam la xam nga. combat bi ñu nekk. mais Cheikh Thioro non mu raw baal ko jàppe ndi xaar tuuti rek moo dawa sénégalais yi la mhm. moom jaamu yàlla la ko def ndax bu ñu fàtte ne 400 góor ñu ci biir kaso bi la mu leen fa yóbbu du ñëpp ñoo xam ne dañu jàppale na am na ñoo xam Jomaay lan lañ ko jàppee Fadilou Keita lañ ko jàppee waaw ñu si gën a siiw rek mais am na parce que 400 yi boo ci limal fukk yoo xam ne euh, ñu siiw la ñu ñeneen ñëpp kenn xamu leen léegi la preuve 56 mhm. personnes yi ñu jàpp Mbàkke lan lañ bi la moo leen jàpp mu daaw mooy jóge Daaru Salaam ñëw ñu jàpp leen ci rond-point bi wàcc leen ñu wàcc ñun leen euh, indi leen seen carte ñu jox seen carte d'identité ñu leen xaar tuuti ñu leen ku ñu fekk ci otoom wàcc la kooku manifestation ci lañ la fekk manifestation noonu lañ ci jàpp ci sa oto te ba léegi ñu ngi bëri ci kaso bi 2 mois 3 mois. te ngeen ko waxtaanee. 53 personnes ñu ngi ci biir kaso koy fajee. ci lan lañ ci waxtaan mooy dem mu teg suñ teg paaka suñ bopp ni ngeen waxtaan fa mbàyyi loolu ku xam Ousmane Sonko moo tax ma ne li may faral di wax rek Macky li a jéem mooy li ma la wax xam nga li li li gën a mhm. li gën a bon ci nit mooy umpale nit ki. Mhm. Ousmane Sonko lu muy am ci ngor la koy amee lu muy ñàkk du ko ñàkk ci ñàkk ngor moo tax Macky Sall bu xamoon ki mu amoon affaire dina wal neneen nun doxalee du nii muy doxalee